sëriñ Kéemaan Guèye sëriñ Kéemaan Guèye gay Gaye région de Tambacounda Tambacounda sëriñ Kéemaan Gaye ñu fàttali leen Tamba accessoire lay jaay ana Tambacounda sëriñ sëriñ Kéemaan sa laaj bu njëkk ci riwaayatu warsh inna charra dawaabi inda allahi summu lbukmu alladina laa yacqiluun audu billahi min alcheytaan irrajim bismi llahi arrahmani irrahim inna charra dawaabi inda allahi summu lbukmu alladina laa yacqiluun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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس jërëjëf وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سن آه سن كيمان ما ما أقلي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا خوصا فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين jërëjëf sa ñettal bi laaj قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين من الشمس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلخوكم سلخوكم بألسنة الحداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يسحبوا بيات الأحزاب يود لو أنهم